la te njabootu sëñ Atou gaa ngi nii sëñ seexu naa mi ngi nii mooy seen mag na ko ne téye dara de kuy ku amul mu téye Ibrahima Kane bu kenn nuyoo loxoy nen de kuy ñëw kay nañu waajal génnal la ko xew-xew bi ba mu xewee ak léegi daara yëpp noppalu wuñ saa su nekk ñi ngi wàcce ay kaamil di ko defal Sëñ Abdou loolu nag sëriñ Touba rek a tax di ko def ndax diggam ak Sëñ Abdou Serigne Touba képp la seen gise bi nga xam ne moo waraloon Sëñ Abdou indi fa kuréel gi ba mu gisee moom xaside la ko laaj mu ne ko daara ji li muy rëy rëy yow yow yow yow sëñ bi xaside rek nga fi laaj Sëñ atu it jàpp loolu ne ko kon dinaa indi kuréel gi ñu defal la ko noo ko bëgg saa su nekkit sëñ Aatu man mii daf may woo sëñ bi ndax wax ban bis la waxagun ban bis la waxagun ban bis la waxagun sëñ bi ne ma dama bëgg mu yaatu dama ko bëgg bis dama ko bëgg def bis boo xam ni loolu dong lay doon moom mi it sëñ bi defal ko tawféex ngir ni mu mel ci daara ji tax ñun ñi nga xam ni ñëpp daara ji ñoo ñu yar daara ji moo def leneen ci ñun mu téye ñu téye goo xam ni amit mbégte ci ñun ci jaar gi ñu jaar ci daara ji ay cër yu yu yu sori ci biiram mm. te la ko waral doxin wi ñuy doxee ci daara ji te saa su nekk mu di ko firndeel boo xoolee ba ci sëñ Modou Aysimi ba ci Malick ñi nga xam ne bokk na ci li sos liggéey bi mm. Baye Malick ñoom Mambay ñi ñoom ibre Gueye ñi mm. ñun ñëpp ci waa këram lañ waaye jàpp na leen jàppin woo xam ni bokk na doxinu daara ji li mu def ci ñoom loolu nag kóllëre gu muy sàmm la diggam ak daara ji mm-hmm. bi bi bi xew-xew bi xewee daf ni ma na nga ci yëgoog man fu ñu toll lépp lay ànd ak ñoom ni ko suñu Muntaxa waxee loolu la ko noonu la ko waxee bi mu ñëwee dafa ànd ak ñun taxawaay bi fii ba mu mat ma jàpp ne day daal di wëlbatiku ndax xat-xataay bi mu ne ma dañuy yegg ba barab yi ba ñu yeggee ci barab yi dànd nañ barab yi lu war a mat 500 nu ñoo dem ndax oto yi mu ne ma nañ gaare fi wàcc dox <laughs> maag sëñ Cheikh ñu ànd ak moom ñu wàcc li muy métti métti moom moo jiit moo moo ñu jiitu sax te ba ñuy fetal jaaruñu ci yoon bi ci biir àll bi lañ jaar ndax armée yi am na wet goo xam ne bayuñu fa foofu la jaare ngir yàkkamte egsi dog yañ fay def mu ne ma lépp nañ ko nañ ko nañ ko nañ ko fekk bañ egsee ba jub ko mu ne nañ topp mbooloo ma fa newoon la ko toppoon it bari na loolu waaye ñëpp def ni leen na ñëpp ne yegg suuf te déglu li nga xam ne moo ñu fi indi jublu penku di tudd yàlla mbooloo ma fa newoon ñëpp moom yar na leen ba ndigal ne nag ku nekk di déglu na sañ Cheikh déglul ndigal la ñuy joxe fa bañ joxee ndigal la it mu ni na ko ñëpp def bañ ko defee baagal ma ne ko nañ dem mu daal di ne mënut ta ñàkk àgg ca barab yi ma ne ko fi mu toll nii de na mu ni nañ dem ñu ba àgg bi ñu egsee ba ci barrière yi mënatuñoo dem ndax mbooloo mi ma ne ko tee ngaa yem fii nga fas mu ne ma mënuma koo ñàkk tiim daa daal di ñëw ba ci barab bi yegg fa tiim def dog yi muy def santaane ñu ànd ak ñoom ñëpp ñu defi dog kon loolu lépp day wane yéenam moo tax ma ne daanaka amul kàddu jëf la def mm-hmm. loolu dañ koy firnde di ko seere rek mm-hmm. waaye jàpp nañ diggam ak euh, aatu diggam ak daara ji lépp mm-hmm. sëriñ bi kase la waaw loolu mënuñu ko ñàkk seere ci biir oto bi it bi ñuy dëpp sëñ Yuusu jot na la waaw seere na ci yowit it seere yoo xam ne waxaat na ko fii nee na nos bi sëñ bi nos dal na xelam loolu te ànd na ci te dañ la ciy gunge te da xam ne lépp dara du dog loolu nag dal nee na li sëñ bi bëgg rek ay am. ñi ñi ngi seere it ñoom Modou Fall ñi ak ñoom Mbaye Ngom Dieye ñi ci daanaka lépp lañu ànd ak moom ni ñu nekkee ci daara ji lu sedd xolam moom it daanaka du tàggoog ñoom fu mu ne tool yu mu ne fekk nañ ko fa ba ci kuréel gi doon jàng léegi ñoom Cheikh ñi ndax yàlla da ko li ma wax rek yàlla da ko defal tawféex fii gone yi tuuti ñu ci baree bari bi ñuy ñëw di yeesu dañuy ñëw ne ci moom la ñuy yeesu te loolu dara waralu ko li ñu li ñu nàmpe fii ci daara ji moo waral aw doxinam doy leen waaw kay waaw lépp ñu ànd ko rek. macha allah ñun ñëpp teewlu.